du si ñàkk xam nga ni Viviane xamoo naa ni euh, bu génnee wax. Amina Poté mi ngi Amérique wala. Amina Poté mi ngi Amérique si. Hmm. d'accord xam nga ni euh, Viviane bu génnee rab. mi mhm. yaa gisee génn toog ne question moom da ko neex posé ma question bu ma neex question bu ma saf. Mhm. mu daal di tontu moom tamit ne bu muy rab boobu moo ngi Tamba. xamoon naa Viviane moom tamit dina ko tontu loolu si maa ngi doon xaar mais merci Pape Sa Diallo da xaw Mm, jaxase mën a jaxase comme man donc moo tax ñu lay si yow donc Viviane Mouride tontu na ki nga xam ni mooy Mia Guissé euh, xam naa ñu bëri leen du mu tontu Mia Guissé non oui moom la tontu parce que ñoom ñaar ñoo fi raf mu toll nii alors nañ dem déglu kii di Viviane tontu bi nga xam ni tontu na ko Mia Guissé ba léegi ma koy confirmer kay moom la tontu. ana ko fi ñeme jaaba ana ko fi ñeme jaaba ana ku fi ñeme fecc comme kii soxna nit ñi foogoo ñu mooy génn après xarit génn c'est-à-dire yi xew yëpp. bi nga ko dalee expérimenté dafa yàgg. mais du tey. waaw man bi may rab boobu xale yaa ngi raam. boobu ñu fi way tey ñu ngi raam. po man bi may bi may def Viviane frère boobu xale yi rab tey ñu ngi raam. Pape seytaane la quoi dama seytaane I love Viviane dama ko bëgg sama xool te dama cee bëri moo rab en fait c'est-à-dire yéen ñii actuellement ci Viviane Chidid officiel Instagram euh, coupure TikTok yi. seen xol yaa ngi sedd fi mu nekk nii. mais eh, mais ana kër yi est-ce que ñu ngi joo ana kër ana kër ana kër. man maa ngi vérifié fi mu ne ñëpp a ngi kër ku leen juum nag mais je vois que des cœurs partout dans le monde et puis ils sont regarde fu ne Sénégal France Amérique Europe Asie pour ñu mayoon nag ndox ñu mën a naanaale fi waxtaan dafay gën a neexal. Mati. wala boog yàpp waaw waaw waaw xanaa. ah wala boog. Eh? thank you Mati. you thank you. mais fii dégg naa ay xale yu tàng fii liggéey. ah mais yu rafet macha allah oui. Eh, Victoria Club la ñu wax yow tam. d' accord moo ngi noonu impossible de ne pas aimer ces ah wala femme. Hmm? ah fille c' est pas grave ñoom ay artistes lañ donc mooy loolu. en tout cas moo ngi noonu Mia Guissé dégg nga ko lu mu tontu woon Viviane nee na ko euh, man ba may rap. xale yu dogaa ñëw nii boobu juddooguñ bi may rab xale yi rab léegi nii ñi ngi raam ñi ngi raam raam di jàng raam raam waaw da ko riime da koo riime day wane ne même su may wax maa ne gën a ëpp talaa <laughs> mais yaa gis tamit kenn ëpp ko feeling xam nga lu neex buñ ko posé question ne question bu ma saf question bu ma neex a ngi xam nga lu neex ma moom li ma gën a neex ci tontu Viviane bi man dama toog fii wax ko dama toog fii nga naan ma ay diwa dàqarab ak kii moo ko gën a nekk à l'aise ak kii moo ko gën a nangam ma ne la. wuy je le dis et je le redis et je vais le redire fois. man comme yaa man moom a dàqarab kii di waaw kay man tamit la ma waxoon dama koy waxaat. <laughs> terewuma la ko. muy Viviane ba muy rab. di ànd ak Viviane et di ànd ak animateurs yi di ànd ak ay ñoom fuumalaat booba xale yi xam nga moom ni mu ko waxee sax dafa sedd <laughs> xale yi ñu ngi raam est ki que juddu nañ bay raam déggoo ma de non dama lay wax d'accord naa dégg naa la kon di mooy gis nga gis nga kii Viviane dañ koo war ne jàqate bañ ko piis néew ma nag kenn da koo piis déglu fi may waxee bu baax moomoo mhm. néew ma kenn da koo piis mais dama ne mhm. dama bëgg nit ñi ne ko jàqate bañ koo piis ndax bu dee musique sénégalaise bi 100 la moom def na ci 80 pour cent barki Sëriñ Bamba jarul seede. kii seedewul de. dafa waay yow seede waay yow doo ma bàyyi seede yàllaa gën bu nit. d'accord nga naan ma kii seedewul. d'accord allo bu fi wax musiba yaa ngi en direct télé Sénégal mu ngaa coupé après daal la woo sama doom di <laughs> loo wax mu ngi génn. waaw ah, baax merci beaucoup acca <laughs> Nana vas-y continue sama doom la garaaw yaa ngi may dégg bu baax donc Viviane dañ ko war ne jàkk te bañ ko piis newuma encore une fois kenn da koo piis waaye musique sénégalaise bi bu doon 100 la moom 80 pour cent 80 pour cent wam mhm. moo ci ne si génération am génération déggoo ma de xam nga Pape Cheikh Diallo démb da koo laaj lu am solo ba ki démb man démb laa seetaan émission bi. Ah, émission barki démb la. man démb laa ko seetaan. waaw mais barki démb la. man laa démb laa ko seetaan kon ah, démb la ci man. <laughs> kon nag nga yéex a sànni révision nga sànni. waaw ba man en man nag man man man man damaa démb laa ko seetaan kon man démb laa mën a wax. a léegi mën nga maa déglu wala mënoo mënoo ko. moomoo déglu ma. yaa ngi di ma perdre sama repère. parce que Pape da koo laaj lu am solo très bien. dane ko. Mm-hmm. dañoo gis ba nga doonee Viviane ba léegi jamono jiit leen. 2000 xaw ma 99 ngay percé xam nga dem ci kaw yomb na waaye ndax reste fa yomb na te moom ba léegi nag ku ñëw di nga ko fekk tubaarikàlla ku ñëw ci kaw ngay jonjanteeg moom moom. waaye doo ñëw mukk naan Viviane daa wàccaat xaaral ma jéem koo yëkkati wala xaaral ma xaaral ma moom mu fekk ma ci kaw non non non non au contraire waykat yu ci bari boo doon tam tànn téeméer. yëpp dañoo bëgg a mel ni Viviane waxuma nag pour damaa bëgg Viviane wala dama ko fee toogal mais déglu ma waxuma pour damaa bëgg Viviane wala dama ko fee toogal man ah. toogaluma fi pour kenn. tooguma fi pour kenn mais damay wax te yàlla rekk tax. ak sa digganteeg yàlla. sama digganteeg yàlla damay wax te yàlla rekk tax. vas-y. yaa may dégg. Mhm. bari na fi artiste boo xamante ni ku dul artiste sax boo ko nee danga suba nga mel ni Viviane li li li li nooree ni di wax ci Wally Ballago Seck rek laay wax. barina na fi ñoo xamante ni tey ji boo leen woowoon ne leen suba dangay mel ni Viviane du ñu nelaw dootuñu lekk dootuñu naan est-ce ma dañ koo war ne jàkk te bañ koo piis et je le je le dis et je le redis je parce que nag quoi qu'on puisse dire mi ngi fexe ba musique sénégalaise bi di di di di dem ca kanam doonte bu demee ci kanam ñoom ñëpp la demal ci kanam kon man jàpp naa ne ñoom ñëpp dañ koo war a ndax na bëri ko ci mbartal la buux mu dem buuxul mu dem. de ko mi Mia Guissé Fall. waaw xam nga ñoom ñaar dañoo dañoo bokk benn point en commun. te booy seet sax Mia moo tane Viviane xam nga lu tax parce que au moins Mia am na càmmeñam wala magam boo xamante ni mi ngi koy mi ngi sës ci moom rëkk te du ko rëkk jibi yaa ngi may dégg boo ko waxee mu ne sama yaa moom frère derrière moi yaa ngi dégg mhm. Viviane nag dafa divorcé affaire yi metti ñi naan day suulu ñii naan dina percé ñii naan du percé damay gëm yaa gisee fa ay waay waaye yow xanaa déggoo samay début dama ne la ñoom ñaar dañoo yam point en commun donte Viviane moo tane moom moo damaa bëgg nag ma bul contre pour contre dee ma déglu bu may wax. la contre déedéet. bu dee may déglu bu may wax fi ma njëkkee ngay déglu ba pare. vas-y boo ne ma de même mi yaa gisa déglu woo ma kon. dama ne la ñoom ñaar dañoo bokk point en commun donte Viviane moo ko xaw a tane lii laa la wax. Ah, Mia waa léegi kon boo ñëwee naan ma. de même que mi yaa gisee kon ça veut dire déglu woo ma. parce que nañ dégloonte oh, rek mun naa bàyyi. waay d'accord parce que lu nga ni mi yaa moo ko tane foofu laa mhm. d'accord nga nga nga bañ mais man sama point de vue laay joxe soo paree nga wax lu la lu la saf yaa ngi may dégg boo waxee mi yaa gisee danaan la sama frère mi sama ginnaaw Viviane divorcé mi yaa divorcé na mooy point en commun yi ma lay wax mais si mu taneewee foofu laa ñëwee doog lay indil nag comparaison bi dégg nga ma comparaison bi. dégg nga ma Viviane dafa divorcé ñii naan dina percé ñii naan du perse ñii naan ñi mu ko sékkal bu jógee ci ñoom dootul dootul tàq day day fa jaaree fay dootul nangam mu téye affaire rekk rek téye ko rek ku wax mu wax ku waxul mu wax boole ko liggéey gu tar dégg ma boolewul dara ki wax di percé ba pare nag di innover xam nga innovation yombul bari bari na artistes yoo fi gis ñoom ñëpp ay cover moo leen moo leen indi fi ñu nekk wala yeneen ak yeneen mais innover c'est pas facile du tout te moom mooy seul artiste boo xamante ni mën nañoo waat ni boo doon lim dix artistes wala cinq artistes yoo xam ne dañuy innover doo ko ci génnee moom Viviane innovation moo tax mu mu ñëw ci mbalax mi ñëw ci ci ci li nga xamante ni moom mooy rab bi ba benn xale yi ñëw naan dañuy rab ma wax la ko tey est-ce que ma kon moom musique fu mu toll tey ginnaaw yàlla nan ko ko sante donc mooy moo waral ma ne la waaw loolu maa ko fi njëkk ma maa toog fi wax la ko ne la garab ci kaw lay fekkante. wolof Ndiaye ko wax wax mais toog naa fi wax la ko laa wax. tey toog naa fi wax naa ko. waaw kay. d'accord dañu dem déglu. loolu weddi ko <laughs> alors salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi si jàmm. sant yàlla bu baax. tur bi naka la. Euh, man la Xadi Tunkara. alors ñu ngi lay dégg. waaw dama doon laaj seet gi ñaata la. seetlu bi ñaata la. waaw. bisimilah. waaw dama doon laaj tere pour leerlu bi ñaata. sëñ bi ah sëñ bi da juum. xaaral ma man ku leen wax ni munu ma ko noo tudd. <laughs> da juum ki lay ah? da ngaa juum. ki da juum. du ñu bàyyi ma seet. da ngaa si numéro wala nga wala nga jum si ah. émission bi. sëñ bi d'accord allo. non mënoo seet dafa naa non non dama bëggoon xam euh, moom dafa jum. dama bëggoon expliquer rek d'accord euh, li xam ne nii mooy Mia Guissé kii d'accord euh, ñëpp xam nañ ni Viviane liggéey bi nga xam ne nii maanaam def na ko. Mhm. ci Sénégal. Mhm. kenn dootu ko warante. mais ba yi dem na ko doon entre kii di Papa Diouf ak Wally Ballago Seck. Mhm. c'est comme Viviane ak Mia Guissé. Mhm. génération bu nekk ak ko moom génération bi ñu toll nii Wally Seck moo ko moom. ak Mia euh, Guissé. tu n'as euh, d'accord bu la neexee nga ni tu n'as d'accord alors demal euh, avant ça maa kii moom naan mu tudd sax nee na moom moo bàyyi jaxase. Mia Guissé ak Viviane jaxase ma leen ñoom ñaar ñooy booy jaxase dara da ngay jaxase ñoo mën a jaxase. non mais Mia Guissé mi mi ngi ci dama doon wax te yeggaleegu ma kooku dugg ci bi. waaw léegi yaa ngi may dégg. Mia ngi ci yoonam di ko doxal comme il se doit mi ngi ci yoon bu baax bi. Maguette ne da ngaa très pertinent. Maguette je je te fais un gros coucou. yaa ngi may dégg donc Mia Guissé mi ngi ci yoonam di ko doxal. Mm-hmm. te mu ngi ci yoon bi de wàccagu ci de na continuer ci lancé boobu mu nekk kaay ma wax la oto ba ca kanam rek la ñuy corné gis nga mi yaa gisee bu sañoon euh, trophée yi mi yi Viviane am mu am ko mbaa yu ko raw fuuf nit ku baax nag noonu lay def man de duma ko découragé loo de dama waay yow dama koy wax pour mu gën a foncer parce que déggoo li ma la wax ci samay ci samay commencement wax mm-hmm. nee naa la ku artiste boo fi woow yamuma sax ci artiste mais nit doomu aadama boo fi woon ne ko tey jii suba ak jàmm nga mel ni Viviane mu day daw ba rëkk. Ah, damay ko mi yaa gisee waaw kay boo fi woo ne nga mel ni mi yaa gisee mu daw a fat. ba tey bokk ak fii kii di Wally Ballago Seck. ba tey xam nga yow da ngay comparer euh, te man comparer wu ma. donc man dama damay wax ni mi yaa gisee na continuer ci lancé bi mu nekk. Viviane xale bu doon waykat rawatina nga doon artiste bëgg a dem international bëgg a dem international surtout. yaa ngi roy ci tànk Viviane kon nag fonceel ci lancé boobu noonu bu la ci dara génnee mais Viviane moom c'est l'artiste phénoménal alors Penda Mbaye moo ngi noonu Penda Mbaye ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax jaxasoo euh, ma de kii laa bëgg yëngal moom doomu Viviane la bëggul ku laal Viviane moo tax alors Ousse ah léegi yéen ki duggoon di seetlu pour lan bàyyiwu leen ma ko ma seetal ko parce que mosoo ma wax ne ah? moom mooy seetaan gis ñuy naan mi yaa nangam tàngam <laughs> mu woote di wax seen. Mhm. xëy na moom dafa bëgg ñu seetal ko. fan la mu yaa di mu yaa di tëggee. non mën naa am da doon da doon xool xam nga nag fii dañ fi dalal ay seetkat. voilà je moo tax ma ne leen ku leen wax tamit seet boobu ngeen gis mais moom mënoon na bëgg day seet fu Viviane di tëgge wala mu yaa. Hmm. ma ah, seetal ko loolu d'accord ah tamit alors euh, Modou Ndong merci beaucoup ñoo ñëw lay nuyu bu baax a baax rek euh, Ousseynou Sall. merci beaucoup frère man tamit maa ngi lay bégee bu wér a wér a waaw mi yaa gisee. ak ki nga xam ne nii moom moo nekk Viviane fu mu toll nii xale bi nga yëg si kawam peut Viviane loolu tiit moo tax. mu ne yaa gisee jàmbaar la Viviane yaayam la. ah ci âge merci beaucoup. non non, non pas ci âge. ci musique bi laay wax da nga may déglu nag comme te posé nga ma question man boo ma namut a déglu rek bàyyi ma après nga xool leneen lu ñuy waxtaanee. ñu wax après da nga bàyyi uus nga am na yoo xam ne boo ko waxee dama lay dagg. ah, ah. leen jàpp tey nii kii faral mi Viviane yow nga faral Viviane c'est impossible. ay fii ay faral amu fi de faral ba dañoo bëgg ñu teg leen kii di far fii kii di far fii yooyu amu fi de. da ngaa laaj da ngaa déedéet ay yow affaire de far nga may wax waxuma far affaire de da nga ma laaj man waxuma li may wax mooy dëgg. Michel merci beaucoup ataay bi neex na. waaw saa yoo pare Michel nga dégluwaat ma fii bu ma jaxasee naan kii faral kii kii faral kii. mbete mbete yow boo dee déglu ma da ngaa war a wax sa question teg ko kii di ànd ak kii kii di ànd ak kee. man joobeewu ah, ma noonu. uy mi yaa gisee Oh, lu ci sama ngañ. vas-y la je plaque vas-y Viviane yaayam la. xam nga lu tax. dafay fekk Viviane Viviane ñaawu fi. loolu dëgg la wa wa bul bul ma lijjanti sama dëgg sama ñàkk dëgg du yaa ma koy waxal bàyyil man mi koy wax gëm naa ni dëgg la. man gëm naa ni dëgg la. Viviane liggéey fi liggéey bu am solo mosuñoo ñàkk jiboo Viviane liggéey fi liggéey bu am solo. Mhm. Viviane. ñaata nit a fi xew di xew Viviane di xew <laughs> wax dëgg yàlla nga ne ñaata nit muy góor ak jigéen ñoo fi ñëw mm. depuis di xew di xewi teewul Viviane di gën a xew wax dëgg mu des mi yaa gisee ba tey nangu naa sa kaw waaw bu góorgóorloo moom dina mel ni Viviane moom si waaw waaw kon nag moo tax yaayam la moo tax yaayam la ndànk rek casino la ma ne la ndànk rek incha allah waaw doo na papay casino casino yokku ca Zénith après mhm. ñun ñii dañuy ñaan yàlla bu tojee casino la set ba mu toj tasar yu xam ni yaa gisee ko toj te di leen ko def ay plateau yu plateau ndax mooy dem te dafa war a am ndam gu rëy. jërëjëf toj mhm. ko. jërëjëf ñu ñu pare ñu ànd ak moom Zénith pare ànd ak moom Bercy. Mhm. jërëjëf olympique bi waali demoon mi yaa dem tojal ñu ko. Mhm. dañ ko koy ñaanal ba mu saf ak i trophée trophée mais dama ni nii nii nii nii nii muy demee nii ci lii ñu nekk. Viviane c'est sa maman moom nangu na ko. nangu koo tax mu topp ci ay tànkam. dëgg la de. buñ jaawalee lu jaawaloo mi yaa gisee jamono ji tembe tembe ak rythme bi mu nekk si autre chose ku ko ku ko fi fekk di nga xam ne mi yaa nga fi fekk mm-hmm. du sa morom ci vie du sa morom ci solo du sa morom ci tendance maanaam li public laaj mm-hmm. Mia di ko joxe ni mu koy joxee sax dafa ëpp. Mm-hmm. ay mais Viviane def loolu nag. waaw waaw voilà waaw léegi. Ah, tontu nga sa bopp waaw dama ci beneen thème. tontu nga sa bopp waaw nga sa bopp. ah kon tontu nga sa bopp demal ci leneen bu la neexee mun nañ bàyyi sax jotaay. Ah, déedéet déedéet yow yaa wax. yow yaa wax yow continue continue yow yaa ko wax de man waxuma ko yaa ne moo ne Viviane yàgg naa waaw waaw ki yàgg def bu ba léegi mu koy def ba nga koy gis di ko def ba pare nga ne ko tontu nga sa bopp mu ne la man maa bëggul di ànd ak yow waaw bu voilà kon nag noppi léegi nag ñun Mia à part Viviane Mia suñu doolee la mm-hmm. mooy lan Sénégal gi yëpp ñun nañ jug encadré Mia toppatoo ko topp ko te xam ne daa nekk ci lancé bu jub mm. xocc ñun ñëpp ñu ñaanal ko encadré ko topp ko niñ ko war a toppee di wax ci ay bisam di wax ci ay mbiram maanaam nit boo amee sa artiste mu am lu muy révélé jàppale ko ci bu ko xas. suñu alal la. suñ alal la ñoo ko moom suñ produit la man bir na ma ni Viviane bu toogee saalam day seetaan mi yaa parce que da gis boppam moom la fa moom la bëgg waaw toog na fii wax ko caaxaan baaxul ci benn entretien bu mu loolu wax loolu a yaa baax hmm. mm-hmm. xaw ma xaw ma nu ñu koy waxee mm-hmm. parce que nangul na ko waaye nag Viviane Viviane moom wax dëgg fa yàlla yaaram. Mhm. tout tànk yi liggéey dëgg dëgg dëgg. Mm. mooy tax ñu dab ndaw si. barke Serigne na ah, mais yaa gisee saa yoo dab. waxuma la yow yow su ma lay wax duulu béy nga naan ma pasti lu xeeñ ak lu mën a mëcc laa lay wax. wuyaay yow doo nekk ni ma lay wax duulu béy nga wax ay pasti. pasti a neex boo ko amee jox mhm. Michel mu def ko ci ataaya bu mu gun gun yi. te sax mais gisee di. ma ne pasti moom yaa ba tey def ko pasti na Viviane doon duulu béy. non Viviane waaw dama lay wax rek comme yaa xam nga pasti du man damay assumer. dama ne pasti nga jël miyaa def ko pasti mooy pasti kee duulu béy mais. doon waaw wuy ma ba tey man maa ko ko def. kooku ngun-ngun la ngun-ngun na doon ngan-ngan wala naanaa. d'accord vas-y ak leneen. Ah, waaw waaye lu mu ci munti doon it faw xana pasti kon. xadisa yow seytaane nga yow yaa ngi déglu loolu la yàlla maanaam maanaam maanaam li may wax nag mooy Viviane moom yaaram wax dëgg fa neex yàlla Viviane dafa am jaar jaar. yaa ngi woon fu nooy de. pur et dur. waaw. Mm-hmm. Viviane. Mm. ku dem Mbour laaj ay école CS3 Daaru dina la wax Viviane fu mu débuté carrière am. Mm-hmm. di rap. kon sa question maa ci ciy doog ñëw dégg nga pour nga déglu. daa dégg même euh, Khadija ñu ngi lay nuyu pend merci beaucoup à toi aussi Khadija lii ñëpp ñu ngi nuyu di leen ziar baax a baax euh, Balak Mamba wala Balak Yamba ñoo ngi lay nuyu euh, Khadija ak pend ñëpp ay. du Balak bëgg da nga bëgg Yamba. bëgg Yamba d' accord <laughs> Khadija ak Penda ay seytaane lañ ñoom Viviane lañ faral kat. non pas pas pas xoro ma ni la. boo demee Mbour laajte ay. école CES Black ñoom ñoo ay artistes yu boo demee neexal rek. boo demee laajte ay CES 3. Mhm. laajte école sant sous. nga laajte Kane Viviane ci carrière am des débuts da doon rap am na ko tudd benn soxna bu tuddoon franc am na it ku santoon Guèye dëkkoon côté Coose. kër géwél yi kër damay fàtte tur bi rek te sant ñoom sant Koyaate ak Guèye tey tëgg kii. xam nañ Viviane Viviane carrière am da ci tàmbalee rek ba di ko Youssou di gisee foofu ci ba mu koy gis. di def variété ba di ko indi. Mm. ci rab la ko fekkoon. Coro Ndiaye fekkee na ko nee na ci la ni kii Mbaye Gueye li war a am ci musique du lii. Youssou Ndour moo ko wax. kon Viviane daanaan ci lañ intéressé wu ci moom ba indi ko fii mu jege leen yow xanaa xamoo ne bi nga juddoo ba léegi musoo doon daanaan tey jii nga ni Viviane daanaan la ci nga tàmbalee doon daanaan. kon Viviane daanaan la. ci nga tàmbalee doon daanaan yow. ak ut du ma doon waxee fii dama yow daanaan nga presque yaa si man nii nii sept heures ban 17 h cinq ci nga tàmbalee doon naanaan parce que ci nga xamee ni Viviane daanaan. mais nanaat ne mu yàgg si tamit naanaan la wus. bu mag. Euh, mm-hmm. jëfati yokkal mm-hmm. bu mag waaye daal yi mbër koy dégg. dëgg la te Viviane moo dégg daal na dégg sax duuli man li may wax nii dama koy wax te leer la ma naññ. Mm-hmm. ci la ko Youssou gisee ba indi ko ca barab ba. muy def ay mbiram di def ay mbiram te Viviane jékki-jékkiwul ne damaa bëgg a def de daa toog topp Youssou ba Youssou ko ne defal def jot na moom newul ni moo bëgg def. Viviane bu doon moom moom ci ginnaaw Youssou Ndour noonu mu nekkee woon. di kër ca lay des. Youssou Ndour ay dem fu mu dem tournée ñu joxoñ ko ne ko kii kii kat la. mais tu mu yàgg si tuuti. waale waale mënoon ko defal mu def. ba fu mu toll nii fu mu turne waale gars yi ne ko waale kii kat la mu ne kii mu yàgg la. yaa ngi déglu Youssou Ndour Waly Seck moo fa Viviane moo fa moo fa. Mia yaa ngi wàcce Mia Guissé parce que. Mia bi muy percé di def ci musique. booba xamul Waly. eh attends garaaw laa lay wax. waaw dafa nànk rek waaw dafa nànk yow li ngay wax xamoo ko de yow yegaleel. ouz ko mu yegaleel fii ku nekk am na. man de man de am naa temps. Viviane. saa yoo pare rek joxaat na. Viviane. juste moo ko gis. merci beaucoup saa yoo saa yoo paree kii na sax ba ba desal. Viviane juste moo ko gis ne ko. Mhm. yow la mi yaa gisee. bu mu nekk si ay torof torof. waaw Wally Seck moo ko téye yëkkati ko. nekk hmm. yow la. da ngay fen. yow wéeroo kon. man maa fanaan da ngay fen. ndax ba muy génn Idda ak leneen ak leneen. Hmm. déggoo Wally ne ci mbirim wala mbàcc. wax dëgg yàlla la nga yem. Mia dafa Mia. Mia tey su ma ko doon taasu dama ko naan Mia yaa xuus. Hmm. yaa xuus. kenn jàllewu la yaa xuus daa xuus kenn jàllewu ko. maanaam mi yaa gisee waalee ko ni nangam sàngam waale lu jàpp mu baax mais du ne moo tenir lu. Euh, mi yaa gisee ab satu kan. Mia est une très grande artiste, artiste du moins. Elle est jeune, elle n'a pas. Euh, elle n'a pas Youssou Ndour, non, derrière elle. On a dit Youssou Ndour, c'est pourtant personne. Quelqu'un qui est à ce sans l'aide de personne, sinon son frère et comment Agwari Balago Sek, Bouga Faté, euh, Afsakan. Merci beaucoup. Allez, Ouzna, Newan. Yaa ngi déglu. Mhm. ma ne la joxoñ ko. Viviane joxoñ ko ko joxoñ ko ko. te mm-hmm. teewul mu tënk ko fi mu ko war a tënk ba mu xamee ni kii jot na étoile am tàkk Youssou da ko nit nii da ko nag fu mu ne nii jot na. Mm-hmm. te ba mu ko nee jot na ba léegi. Mm. foog naa ñëpp xam ne ni jot na. Viviane bés boo toogee ne da xalaat ni ci la gën a mun a suulu ci la leen di su ci la leen di suul yéen. ak Viviane star ñoom ñëpp ci musique sénégalais bi jigéen bi mm. Viviane mooy seen maman star la mm. la reine de waxuma la ay way waxuma la way way waxuma ko titi ku ko ni way bu woyee nga daw Kumba Gawlo Seck bu woyee nga fëx aju usa keneen ak keneen mais kii star la mm-hmm. ni Wally Seck góor ñi doonee seen ténor star star kii noonu la demee léegi nag moom waxoon naa la ko fi démb barki démb dama la koy waxaat chaque chose à son temps bientôt Wally doo ko dégg bientôt Viviane doo ko dégg ñun Viviane bu poussé am na suñu yaa ko ba bu tax waaw ba tey pousse na ko. asta na pousse ko waaw yow ba léegi nangul rek yow yaa naa pousse ko pousse ko puusagu ko ba tey puusagu ko. waaw puusagu ko mais insha allahu rabi <laughs> wala puus na ko ba pare mais heureusement ba nekkoon na ba nekkoon na fi bañ puus ko am na ñoo xam dinañ bàyyi. di leen wooy bu bàyyi kenn du ne puus nañ leen ñoom puusal seen bopp waaye kii nekk na fi heureusement ba ñu xam ko bañ puus ko. ban solution laay wut. chaque chose am en son temps nañ nangu lii rek amul dara buñ leen buñ leen sax utal kii. c'est le Sénégal qui gagne. acca jërëjëf. jaajëf. jërëjëf ñoo ngi jaajëf merci beaucoup am na xam ne kenn du leen puus kenn du ah. leen pousse ba ñu puusal seen bopp. Mhm. Fama Kassé merci beaucoup Kolodia euh, Gomis merci beaucoup si message bi euh, dañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax incha allah rabi euh, merci beaucoup. nga ne artiste Black Yamba merci. <laughs> Khadija Ly Khadija Ly nee na Ouz nee na yow la bëgg man bëgguma te Khadija xamul ne man bëgguma ko kat. waaw man la bëgg nangul rek ndogal yàlla. Khadija yow mën nga bëgg xam naa da ngay sóob nii rek. <laughs> Thioro Ndiaye merci beaucoup à toi aussi Awa Fall merci beaucoup Anta Penda Bey di ziar bu baax a baax. Euh, ak képp ku ñuy seetaan alors mi xam mu yàgg si moo xam Viviane ñoom ñaar ñëpp suñu ay fierté ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ euh, mais comme ni ko Ouz waxee donc euh, Viviane kenn dootu ko présenté Sénégal yàgg nay rab et comme ni ko waxee rek moom tamit maanaam bu muy rab xale yi bopp ñoo ngi raam et si ku xam ne ku rabal ay Fou Malade Pakouti ça veut dire yàgg na loolu donc même tamit. kii di Mia Guissé ñun ñëpp donc tamit xamee nañ ko si rab bu baax a baax wax na ko ko rab bu mu nekkee Tamba moom doon rab ay yu am solo donc ça veut que talent bu bëri la bi nga xamee ni ñun sénégalais yi euh, ñoo ko moom ñun sénégalais yi ñoo si ñoo si bànneexu donc tey moo xam yaa gisee moo xam Viviane ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lenn lañu mën a def jëmale musique si kaw a kaw Viviane bu ko indee maanaam ba 100 pour cent mi yaa gisee jëlee ko 100 yóbbu ko ba 200 pour parce que loolu lañ si bëgg bi sànq maa ngi la ko doon wax naan la euh, Mia moom bu sañoon day mel ni Viviane. si maa mu raw ko. waaw donc loolu fierté wu Viviane la. parce que mhm. yaa ko wax léegi ñun sénégalais ñoo ko moom. Mhm. talent ak lu mu bari bari. ak lu ñu mën mën mën mën ñun sénégalais yi ñooy borom parce que fu ñu mën a dem états uni Amérique Europe fu ñu mën a dem. Mhm. drapeau sénégalais bi lañuy yóbbu. kon loolu fierté sénégalais la waaye fierté Viviane la de même que Mia Guissé bi ci topp mooy ku ànd ak Barack Adama. ànd ak Fally pa ànd ak yeneen i artistes yoo xamante ni ils ne sont même pas là au Sénégal donc kooku ku bëgg mel ni moom foog nga prouver donte Mia mi ngi ci yoon bi donc dañu koy wax mu foncé gën a foncé parce que nag jot Viviane sànq euh, nooré ni mi ngi ko doon wax nga dagg ko mais maa ko doon wax maa ngi koy fàttali naan ko yaa ngi woon fu neex dafa wax lu am solo te jotul yeggale dane Viviane foog nga nekk ndaanaan dëgg ndaanaan dëgg pour mën a yegg fi mu yegg. si c'est vrai ndaanaan la ku lu fadrin mhm. waaw. merci beaucoup euh, kontaan nañ bu baax a baax non je ma bëggoon rubé rek mais balaa voilà euh, Mia Guissé comme ni ko waxee moom si yoon bi et Viviane ndaanaan la moom fu mu toll nii euh, audi niveau international na foofa demee boo xamul Sénégal xam nga Viviane. wax dëgg donc loolu loolu xam nañ ko mais des fois il faut mu bëgg di ruwee di neexal parce que yow Viviane sa yaay la ñëpp xam nañ Ousmane Wally Seck cousin am la papaam lu ko neex lay wax donc man kooku maa nëtt maa mun di leen défendre mais yow Mia sa sa la. Ah, mu nekkee sama sœur. la. kii wàllu dama koy wax dara léegi yow keroog keroog keroog. dama koy laaj rek yaay yéen ñëpp ngeen may dégg. yéen nga xam nga dama ko doon jox ay question mu mel ne ay dal wala yeneen ak yeneen. Mhm. di ko expliquer di waxit yu baax keroog biñ jàkkaarloo Mia gisee dama cee daw yow taa yow mhm. damaa coupé sama vidéo kay. yow yaa coupé sa. vidéo parce que li ma doon wax nii li may toog nii di wax plateau ku ma ci jàkkaarloo man li may wax damay koy wax. Mhm. parce que keeruma la. ñoom nag ñoom la nit ñi xam. et mi yaa gisee mii moom mu neex nit ñi mu naqari nit ñi day dem ndax daa neexal ah. ci yoon wi. Mhm. pour ñu teel pour ñu teel a noppalu. Mhm. mi yaa gisee mii. ku ko jàppale day dem. Ah, waaw ku ko jàppalewul day dem. parce que dafa nekk ci yoon wi. Mm-hmm. incha allah insisté le set bi casino de Paris. loolu plateau lañ koy def. spécial merci beaucoup spécial ñu nekkuñ fi. Mm-hmm. ak toog ak sunu musiciens yi ak joué katu yi. Mm-hmm. ba ci ay ñoom saa neex ñi am ay prime ak ñoom Ramatoulaye dinañ ci toog wax ci. bien sûr ñu nekkuñ fi ñi nga xamante ni nangam sàngam maa ngi koy lancé yéen ñi ñuy seetaan ñëpp ku ci am ay soxla ñu feebar xale yu réer. am problème sab koñ ak feneen ak feneen filmer leen woon ñu wala ngeen woote wax ñu parce que ruq-ruqaat yi am na yu fay xew nit ñi xamuñ ko te duñ ko dénoncer dañ ko war dénoncer nit ñi di ko xam. Mhm. bëri na ci ay plateau yoo xamante ni dañ koy waxtaanee ñoom dañ naan xiiroo ŋaayoo. Mhm. lañuy bëgg mais dafa am ay raisons yu am Sénégal xëy na ñoom amuñu jot pour di ko wax wala nit ñi duñ leen fa fekk ñun suñuy numéro ngi nii. nañ koy wax lii xew seeni koñ ak ay jëfin yi. Mhm. nañ koy wax parce que ni leen koy dénoncelee noonu lañ leen koy saafaralee. Mhm. bien sûr noonu lañ koy saafaralee. Mhm. man à péage bi route maanaam astafurlaal route Malibu bi boo wàccee pont yi ni mu doon def. man guddi gi laa doon toog chaque jour balaa ñoo débarqué ñu fi ma koy wax. Mm-hmm. ba maire ba woote guddi gi ne incha allah raw taxaw na ci bañ defar ko pont wu Cheikh Béthio boo tàmbalee liberté 6 ba defee di dem mooy ruq yi scooters yi doon aw chaque jour muy def choc. Mm-hmm. dama ko wax a wax a wax ba fii maa ngi ko doon fu ne nii fàtt nañ leen. yàlla lay fay macha maanaam maanaam duñ ko noppiwaale dafa am yoo xamante ni dénoncé te nag lu toll ni buntu Pikine boo fa jógee rond point bi ngay njëkk a jot mooy SIPS. Mm-hmm. ba poste Thiaroye amul pont bu nit di jéggee nit ñaa ngi jéggee nu leen neex bay inspecteur dañuy ñëw di wër pont yi nit ñaa ngi leen di tël ñu ngi dee chaque jour mu am soog du yoon. Mhm. nañ dénoncé yooyu du yoon. Mhm. jàmm gën nit ñi ni ñuy jéggee mu ngi rey du yoon nañ ci def pont yi daanu woon nañu kii nañ ko defaat. defaat ba pare diggante poste foofu nañ defaat pont yi. nit ñi di jéggi. te fii nii rond point bi Cheikh Béthio ba fi nga xamante ni mooy Sacré Cœur lu mu bon bon war na am benn pont bu ndaw bu nit ñi di jéggee on fa cinéma paateeng fa Euh, KFC nga fa. banque nga fa. nit ñi dañ koy soxla jéggi jéggi boobu parce que chaque jour ay choc. te oto yi ko leen neex la dawee. Mhm. yooyu nañ ko mhm. bàyyi xel. Mhm. d'accord merci beaucoup Ousmane c'est cet Ousmane là qu'on veut voir merci beaucoup.